c'est pas normal ça. c'est pas normal moom. affaire yi. ça va bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi ak internautes yeeg ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan. voilà di waa Sénégal di képp ku toog di ma seetaan. Mhm. voilà di di nuyu samay fans di sama famille bu baax di la mhm. remercier ci invitation. c'est normal c'est alors. Euh, ban ban bilan ngay def ci sa ci sa ci sa ci sa carrière bi nga tàmbalee ak léegi yàgg na yàggul waaye defe naa commencé nga tàmbali di am expérience bu mag ci euh, ci wàllu musique ban bilan nga ciy def. Euh, ci ban côté. ci ci ci bilan euh, genre bi nga tàmbalee ak léegi kontaan nga li nga def ci musique am na lu bëri loo ci jàng yaa ngi ciy évoluer comme il faut. bien sûr comme comme nit normal rek. Mm-hmm. maa ngi ciy jàng et maa ngi mokkal. yaa ngi mokkal bi nga tàmbalee ak léegi mu ngi bëgg a yàgg est-ce que dem nga ba. acquérir expérience boo xamante ni permettre na la par exemple yaay bind way euh, gën am aisance par rapport ak euh, bi ngay doog a tàmbali nekk xale. waaye bien xam nga nit moom day màgg. Mm-hmm. donc euh, maa ngi màgg ci côté écriture bi aussi. Mm-hmm. maa ngi màgg ci côté yëpp. Mm-hmm. yaa ngi yaa yaa ngi gën a am expérience. maa ngi a am expérience bien sûr. chaque jour que Dieu <laughs> man maa expérience defe naa. musique bi musique bi nan nan nga koy dundee. waaw ça va de. comme nit normal rek. Mhm. maa ngi koy dund parce que dama koy def passion moo tax ma koy def. donc mhm. maa ngi koy dund normal. au début lan moo la ci dugaloon. passion rek. xëy rek nii nekk ne da nga bëgg a nekk waykat te bokkuloo famille boo xam ne dañuy way nekkuloo ak ay nit xamante ne ay artistes lañu mais qu'est-ce qui t'a poussé tout d'abord mooy nuyuwaale sama frère ak groupe am. Mhm. ex groupe am ça je dire. bu baax donc ñoom suñu man en fait benn mag bu jigéen laa am. mais Euh, nekkuñu woon ensemble. Ah, waaw fan la woon Dakar wala fan. non Kolda. ah moom fii la doon gën a nekk parce que da doon jàng affaire yooyu et tout. Mhm, mhm. donc euh, sama man sama mag yu góor rek laa doon àndal comprendre nga. Mhm, donc ñoom suñu kër lañ doon defee seen répétition yi suñu buntu kër lañ doon defee seen concert yi. Ah, kon loolu nga dem ba. waaw <laughs> léegi man dem ba gën leen mokkal seen texte rap yi comprendre nga. Mhm. di kii nii di dem di dem di dem après bu ma musique bi daal ma bëgg ko carrément. Mhm. après sama waa kër aussi remarqué ni que am naa voix yàlla def am benn émission bu amoon muy seen petit gars ci suuf quoi. di woyantu lu ñu way ma way ko <laughs> di defante ak ñoom comprendre nga. donc ñeme way nag. Mhm. Euh, voilà mu am benn émission bu amoon muy seen petit gars donc sama mag bu jigéen bi gis ko ne ma lii boo jàngee am BFM dinaa la fa yóbbu. boobu yaa def BFM. Mhm. Mhm. après yàlla def ma am BFM ma dem seen petit gaale. bi mu fa jógee nag ma décidé def sama carrière. Mhm. après da nga bàyyi jàng bi wala da nga continuer di jàng di defaale seen petit gaale wala. non bàyyiwuma jàng. maa ngi doon seen petit boo jàng loo fa def. donc maa ngi je je juste savoir nga man <laughs> paalaa bu yëgul dara. doon jàng bien sûr maa ngi doon jàng def musique. est-ce que yow nga boole ñaari parce que jàng dafa fiir comme on dit. bien suir que no yomb na yombul. Mhm. franchement parce que day am moment yoo xamante ne da ngay war a dem concert wala studio wala dara nga war a jàngi. Mhm. war a mokkal say leçon. Mhm. donc organisation rek la laaj. après nga continuer de fil en aiguille ba album génn wala ba ay single di génn. non ma kon ne def sama premier single mu tombé décembre. ma profito def samay concert affaire yooyu tout kon ne ba année bi jeex. ma nekkaat ci musique bi. defaguma nag album. parce que bi ma commencé def musique euh, cinq ans lay mat wala quatre ans sama mhm. carrière solo. Mhm. donc ay single laa def mais mhm. album bi mu ngi en cours. mais qu'est-ce que ça te fait d'habitude euh, ci bu njëkkoon artistes yi dañuy génne album. doog a siiw wala doog a yow mosuloo génne album mais fexe nga ba bokk ci game bi loolu qu'est-ce que ça te fait. Euh, contentement la may def rek. parce que c'est pas évident et nit ñi kenn moomu leen. donc yàlla defal def na ni. ay single rek laay génne depuis lors te bu génnee yàlla def ci sutura. mu egg ay millions de vues. ay am naa sama son bi dina baax am na. 14 millions ma 15 gis naa ko 14 millions de vues voilà de vues bëri na de. léegi loolu muy amour boo xamante ni euh, voilà regarde 14 millions de vues. Mm-hmm. ci ci deux ans xam nga. waaw ah. donc euh, ak yeneen son yeneen yeneen yeneen son. Mm-hmm. voilà. mais maa ngi maa ngi maa ngi liggéey album ak yeneen yeneen affaire mhm. ak yeneen projet yoo xamante ni yaa ngi ci dinañu mhm. waxtaane yooyu yëpp xam naa euh, ci euh, kanam tuuti parce que qu'on a mhm. tellement envie de euh, découvrir ci projet yi nga xam ne ni yaa ngi ci yamuloo ci single yi kese yaa ngi ci yeneen projet yoo xamante ni tu es venu pour nous en pour nous en parler dañuy déglu titre bi nga xamante ni moom moo def 14 millions de de vues ah di euh, euh, Dieyna Baldé cette euh, woy bi boo ko dégloo di nga sentir ni sa bopp ngay waxal sa bopp ngay ngay ngay ngay ngay yedd ngay wax loo xamante ni ku ko dégg war na mën na góor góorlu mais sa bopp ngay waxal apparemment. parce que man jàpp naa balaa laax jaay laax lekk. Mhm. comprendre nga. Mhm. et defe naa man. artiste la donc mhm. woykat la mhm. su ma amee lu ma war a wax lu ma war a wax yàlla may na ma sama voix donc mën naa ko exploiter à mhm. travers loolu. pour woy li ngay dund. li may dund quoi. donc son bi dafa tombé woon. yàlla ma am ci lu ma benn affaire bu ma jaaroon. mu métti torop. fekk ni benn single laa defoon avant loolu di am di ma arrivé dans ma vie. donc euh, bii moo nekkoon sama deuxième single sama carrière. ma ne su ma ñëwaat il faut ma ñëwaat ak quelque chose boo xamante ni ça va toucher tout le monde vraiment parce que li ma dund nii am nañu dund pire que ça am nañ en fait man dama généraliser way bi mhm. ku ci nekk nag boo ko dégloo ak fi mu lay yóbbu comprendre nga mhm. donc euh, ma ne il faut ma def loo xamante ne moom lii bu génnee moom franchement mhm. xaaruma ci woon nag million de vues yi mu am franchement donc ma jël si sama temps concentré wu concentré wu di ci di ci xalaat liggéey ci ak ñi ma ci war a liggéeyal ba mu génn voilà. Mhm. mu mu génn si xol dugg ci xol. Mhm. donc période boobu nga koy euh, nga koy woy yaa ngi wax léegi. dafa am mhm. ci loo nekkoon ça tout le monde est au courant. bi nga ci génnee après nga nga génne ko. Euh, mais lan moo la jox force su nekk ci euh, benn mbir ba génn ci génne woy toujours nga am courage ak force bi lan mooy lan quel a été avant tout damay wax ni que. damay sant yàlla. voilà di ne à chaque fois li may aidé mooy man bi may lépp lu ma dal en fait euh, si si sama vie. si musique la ma dalee. te musique mooy sama passion. donc man tey du ma mës a baisser les bras. mais balaa ngay dugg ci musique xalaatoon nga ni yooyu dina la ci dal. non xalaatuma ko woon de franchement xalaatuma ko woon parce que après am na ay moment yoo xam ne toog naa ne man suma xamoon du ma dugg ci lii. Mhm. comprendre nga parce que xëy na tey su ma nekkoon sama rukk di jàng wala kon ne li may def wala dara après dara du dal même bu ma dalee sax après kenn du ma xamal. Mhm. franchement xaw ma woon. mais quelle a position say parents parce qu'il faut rappeler que bi ngay dugg ci musique xale bu tuuti nga. Mhm. Euh, màgg nga léegi c'est vrai mais ba tey tu xale tu restes jigéen. Euh, comme on dit euh, quelle a été position sa ay sa ay waajur sa ay kilifa euh, ban nan la ñu taxawee woon pour te soutenir parce que kuy woy wala kuy siiw wala ku nekk xale rek de façon générale war nga am jàppale. avant moi dugg ci musique wala. bi nga ci duggee bi jafe-jafe yi ñëwee bi problème yi amee bi coow yi ñëwee et tout ça. waaye dund nañ ko ak sant yàlla ñu soutenir ma. Mhm. te xam ne peut-être lii ma dal nii ci famille bi yëpp man rek la dal. Mhm. man rek ma siiw aussi ci famille bi yëpp. Mm-hmm. comprendre nga te xale laa. Mm-hmm. et nattu ku ne lay dal. Mm-hmm. donc may remercier sama yaay bu baax ak sama pa sama parents yi sax laay wax. di leen ñaanal gudd fan ak wérgu yaram taxaw nañ ma ni nit di taxawoo doom. franchement moo tax sax boo xoolee ba tey ma am mentalité bi ma am force bi ma am. parce que ñoom ñoo may. dañ may wax dëgg. Mhm. mais dañ may soutenir. Mhm. et puis y' a tu as toujours cette liberté c'est-à-dire bu coow amee wala bu wax amee après di nga génn expliquer di nga génn wax loolu itam force la laaj et c'est pas donné à c'est pas c'est à tout le monde naka ngay dundee euh, regard ñenn ñi euh, sénégalais yi comment tu vis avec. waaye euh, avant tout man dañ ma yar yaree ma noo xam ne lu mënti am sa àdduna da ngay assumer mhm. comprendre nga. parce que bu xasee am yàlla rek mooy le seul juge boo xamante ne peut-être moom moo lay juger nee la ci ci lim lay juger quoi pas nit. Mm-hmm. Euh, donc li am am na damay assume samay responsabilité mm-hmm. taxaw mm-hmm. waaye li am man dama koy assumer li amul nag du ci attardé wu. donc euh, mun nañu wax ni danga am fit wala amoo fit. non loolu du question fit. question de man pour man maturité la. ak ful la. parce que boo defee. amal fitu taxaw ne maa def. yooyu yëpp da nga ko considéré comme ay jëfu ay defu xale def defu xale léegi loo dootul defati la léegi gën nga yeewu gën nga xippi say say bët et tu as maturité am nga léegi maturité boo xamante ni euh, ya amoon di ko daw wala di nga ko éviter wala dootul amati. bien sûr que oui. Mm. parce que boo xoolee benn nit du du coow. benn nit du coow. comprendre nga. Mm-hmm. donc coow buy am bu dee ñaar nit ñoo xuloo ci ñaar ñaar nit ñëpp la jóge mm-hmm. problème bu aussi bu amee ci ñaar nit ci ñaar ñëpp ñaar ñëpp la jóge kenn mm-hmm. rek mënul def. donc euh, man màgg naa. et ñaan naa yàlla li des sama dund peut-être nit bañ ti ma dégg ci leneen. wala ñu bañ a tudd sama tuur ci leneen. franchement. parce que lii man je me lu du lu ma nit teg. lu ma yàlla teg la dafa bokkoon sama destin fallait que ma dund ko mhm. et damay sant yàlla bi ma ko teelee teg mënoon naa dem ba màgg wala nekk sama digg carrière mu dal ma après damay mhm. arrêté mhm. munu nu ma def faaw ma arrêté ma ko ne donc comme que xale laa yàlla won na ma te yàlla ku mu jàngal da ngay mokkal mais est-ce que yomb na pour yow euh, euh, di di di gérer doom par exemple nekk xale war a gérer sa carrière naka ngay def pour organiser wu bien sûr euh, yow yomboon na yomboon na parce que man sama famille defe naa sama doom bi ñoom ñoom ko gën a bëgg. gis nga. Mhm. <laughs> pour man ma teg ko sa waa pour man ma teg sa problème la sama yaay moom moo ko ñor bi mu juddoo ba tey amatul soxla si man. Mhm. lijjanti wu ma faale wu ma mhm. comprendre xale bi man xamaluma ko dara. sama yaay mooy def lépp. sama waa kër sama frère yi. dañ ko bëgg ba man dama naan sama yaay dama ko ne may naa la ko. may naa la ko. ci xol bu sedd guy ndax ni mu ko bëggee bu jooyee mu jooy bu kontaanee mu kontaan trop donc man sonnuma sonnuma si benn yoon. Mm-hmm. Mm-hmm. après est-ce que am na yum la yàqal wala am na ay jafe-jafe yum la indi je discutais dans la foulée ay kanam yi ki te ki te ki euh, li ma njëkk a wax mooy Dieyna euh, dafa mën a woy dafa am tala mais souvent day am ay obstacles yoo xamante ni dafay tegu ci kanamam euh, par rapport ak coow yi jot am et tout ça je vais pas revenir ci polémique yooyu noonu parce que moi ça ça ne m'intéresse pas. et que euh, c'est pas mon nii ni euh, yu fi télévision Futur Média euh, lan la la yàqal ak yan jafe-jafe ngay dund mu leen la ni actuellement bu dul woon nag coow yooyu tey di nga gën a liggéey ci sa carrière mais terewul yaa ngi liggéey malgré difficulté yi beaucoup d'obstacles bien sûr bien sûr que oui am na yu bëri yu ma yàqal mhm. parce que am na loo xam ne bu ñëwee rek dal si sa kaw day metti torop torop torop sax. Mhm. parce que da ngay da ngay mel ni kuy waaj dof. Mhm. parce que daf lay fekk fekkoon na ma ma nekk ci ay yéen may préparer ay projet nga projet waaw mhm. di préparer affaire yu bëri yu bëree bëri bëri am ay commencé liggéey ak ay nit. am ay link yoo xamante ne peut-être ñooñu liñ ma mënoon apporter man xaw ma ko ñoom xamuñu ko. comprend nga. donc affaire bi ñëw rek dal sama kaw. bloqué loolu yëpp. doo xam nooy def boo génnee doo xam fooy dem. doo xam en fait doo xam nooy da ngay jaxasoo <laughs> comprendre parce que télé yaa ngi wax. Mhm. nit ñaa ngi wax. Mhm. seen sa dëkkandoo yaa ngi wax. Mhm. sa waa waa kër ñoo ngi wax. say xarit ñoo ngi wax. en fait ñëpp ngi footu na ñoo ngi wax. dafay dafa metti woon torop torop torop sax. te boo xoolee ba nii soo gisee sax. nit ñi duñ ma gis ci lu bëri comme ay événement wala ay concert wala affaire yooyu. moo tax. parce que lii nii bokk na ci li ma retardé ci lu bëri. Mhm. parce que moment bi muy am fekkoon na ma préparer lu bëri. Mhm. amoon ay affaires yu bëri yoo xam ne mu ngi woon en cours. Mhm. mu ñëw dal ma ma tal leneen talatuma woon musique bi leneen laa taloon. nekk ci lool nekk ci lool ba après génn si commencé waat. jugaat ndànk-ndànk voilà. mais wul ñu ngi lay woo ci concert yi yaa ngi dem ci spectacle yi donte liñ la ciy gis du bëri noonu. bien sûr bien suir que bi ma bi ma ñëwaatee ñu ngi may woo ci ay spectacle daa maa ngi maa ngi maa ngi joué maa ngi commencé joué ci ay spectacle mhm. par rapport ak parce que man dama commencé sama carrière rek dugg ci benn affaire <laughs> <laughs> comprendre nga jotuma. yow mii jotuma jotuma en fait maanaam man dama mel comme. xaw ma sax nan laa ko mën a expliquer non mu euh, xaw ma nan laa ko mën a expliquer. <laughs> <laughs> comprendre waxate bu fi jooy. waxal en toute liberté. non man bàyyi naa jooy waxal <laughs> nu ma jooy màgg naa xaw ma nu ma ko mën a waxee en fait man dama xam nga dama ñëw rek. dama nekk dama ñëw taxaw nii rek ñu jàddlu ma jàdd damaa ñëw rek jàdd non xaw ma nu ma ko mën a waxee maa damaa ñëw rek jàdd comprendre nga dama taxaw uh-huh. ba ñëpp gis ma rek ma jàdd rek nga jàdd waaw <laughs> mais jàdd boobu c'est à cause de toi ou c'est à cause ñeneen ñi ñoo ko non ma wax ñeneena a je peux dire yàlla la yàlla la waaw xale du yëfu xale rek non yëfu xale rek du yëfu xale rek mais bon man daal yàlla la daal. Mhm. loo xam ni sa destin la woon. sama destin la woon yàlla la du ma ne nit la du ma ne di woon mais yàlla la du waroon am la am. Mhm. léegi loolu. Mhm. loolu am retardé ma ci lu bëri ma toog presque un an yoo xamante ne benn single laa amoon génneewu ma def ma dara xam nga taluma sama bopp te maa ngi doon doog commencé sama carrière ñu bëri xamuñu ma. ma ñëwaat encore defe naa. Euh, defe naa avant ma waaw ma génnewaat benn encore ma jàddaat comprendre nga. waaye léegi non maanaam dama <laughs> dama xool lu gën a rafet nu ko nu mu gën a rafetee. moo waxee ko noonu comprendre nga maanaam jàdd cela veut dire yàlla teg la nattu. comprendre nga. voilà à deux reprises quoi. à deux reprises da ngay ñëw ba nekk commencé dem. Hmm. nekk xale xam nga. Hmm. fekkoo sa famille way amoo en fait amoo foo wéeru fu dëgër quoi comprendre nga tu es seul xamoo li lay xaar nga ñëw rek taxaw am esprit wu xale xam nga siiw naa léegi xam nañ ma maa ngi dem concert maa ngi def nii nga affaire yooyu daal nga ñëw rek affaire benn affaire dal la mhm. nga pari si loolu nekkaat ci leneen génnewaat benn affaire mu dalaat la bloqué la fépp mhm. te am expérience bu bari day metti si yow mhm. loolu moo ma daloon mais léegi dootu la dalate defe naa du ma dalati de. Mhm. te yàlla duma ma tegati nattu. parce que li ma mhm. dund metti na. Mhm. jàng naa si te doy na. souvent euh, nutritieux yi dañuy faral di jàmbat ni bu ñu nekkee ci seen diggu ndënd di cartonné ñëpp la ñuy gis bu demee ba metti du ñu gisati kenn est-ce que yow euh, tu as vécu ça. waaw bien sûr que j'ai vécu ça boo xoolee génne naa ay son yoo xamante ne ci loolu laay wax. amoon naa it ñu bëri ñu ma entouré ñoo xamante ne franchement. Euh, defe naa bokk na bokk nañ ci ñi ma yàq ñu gën ñi ma gën a yàqal ci ñoom lañ bokk. Mhm. comprendre nga. Mhm. xam nga may dund ak ñoom lu sincère man de ma part. Mhm. di jàppee leen. Mm, sama bopp. ñu def ma yu métti yoo xamante ne du ma ko mën a fàtte sama àdduna ba keroog may dee franchement. est-ce que c'est des gens que tu continues de voir wala yaa ngi leen di seen euh, nii ba nii. non ah. bëggatuma si sax gis kenn. bëggatuma ci gis kenn xoolu ma leen xaw ma ci lu ñu nekk franchement mais du ñu mën a génn sama xel quand mhm. parce que dund naa ak ñoom. Mhm. te te te seen relation yi dafa dafa sori woon. dafa sori woon trop mhm. man ci ni ma ko jàppee woon sori woon na trop. mais après après am lu am xam nga. mais mooy loolu. ñu mel ni comme si dañu mm. léegi damay wax ñu indi la café. nga naan café ma jël pause. doom la et puis yéen tamit ngeen bëgg ko lool muy cartonné. li mu wax ci wooy wi nag mën na maa rey sañse la ne ma mel ni fanaal <laughs> j'adore cette partie merci encore d'être là euh, ñu ngi waxtaan depuis cinq euh, ci carrière bi ci liggéey bi ci obstacle bi ci jafe-jafe yi essayer comprendre ci jàdd bi parce que na da ngay ñëw commencer rek <laughs> après bu doxee tuuti jàdd euh. mais sant yàlla tey nag nga dem ba daanaka lépp calme na yaa ngi concentré wu ci sa liggéey lan ak lan nga décider def léegi yan mbir nga prévoir fi mu toll nii. waaw tegu ci yoon bu bi ma bi ma bëgg a bi ma bëgg a tegu. Mhm. ci yoon bu jub aussi. Mhm. donc lépp loo xamante ne dina doxal sama carrière ci kanam. Mhm. te dinaa ci am réussite. ci loolu laa nekk. yaa ngi wax sànq ni yaa ngi préparé album est-ce que actuellement album bi pare na. Euh, album bi nag pareegul. pareegul mais li si des bëriwul. Mm-hmm. yaa ngi bind way yi. waaw maa ngi bind ak sama équipe euh, mm-hmm. Kourouma ma koy nuyu waale bu baax a baax mm-hmm. Kourouma ji moo di d'ailleurs sama son yi ci ëpp moo ko def. donc maa ngi ci liggéey ak moom bu baax. est-ce que est-ce que bind way yomb na euh, nga nekk xale gis sa mag yi gis sa papa yi gis sa yaay yi di nekk ay waykat mais bi nga ci duggee tu t'es rendu compte que musique finalement yombul. yomb na yombul ah. parce que bu nekkee sa passion. nga bëgg ko lool. Mm-hmm. lu metti parce que foo toll da ngay woyantu. <laughs> da ngay woyantu tout le temps quoi di fent ak di. waaw da ngay woy comme dof. est-ce que nga def ay live. Mm-hmm. Euh, non commencé gu ma def ay live mais maa ngi répété. yaa ngi répété ak sa groupe wala ak ay. musiciens ak ay musiciens ñoo lay accompagner mhm. tout le temps. est-ce que liggéey bi mu ngi jaar yoon yéen ngi koy def comme il faut pour pouvoir au moins génnee loo xamante ni comme à chaque fois yii ñu dégg yëpp benn bu ci déglu dafay neex. Mhm. bien sûr que oui euh, bientôt rek sax dinañ gis incha allah maa ngi liggéey bu baax a baax ci côté live yi. Mhm. parce que dama bëgg a commencer def ay mm, showcase ay soirée un peu partout ici wala. Euh, si région yi. Mhm. wala au niveau international sax. je peux mhm. dire donc maa ngi ci. Mhm. aujourd'hui nga fekk baax Kolda. est-ce que tamit nga fay dellu ban relation wala ban rapport nga am ak euh, publiku sa dëkk. rapport yu baax. parce que man man Kolda laa am. falaa laa juddoo fa laa màggee falaa jàngee fa laa yaroo. d'ailleurs sax sama premier concert defe naa foofu laa koy defee incha allah le 26 décembre. may woo waa Kolda yëpp. ñi fa dëkk ak ñi fa dëkkul sax nag. parce que man un peu partout. am naa lan moo tax le 26 décembre. waaw le 26 gars yi ñoo ko choisir. Mhm. <laughs> gars yi ñoo ñoo choisir le 26 décembre. Mhm. donc man aussi ma ànd ci ak ñoom parce que man moom Kolda mooy sama fierté te moom lay ndamoo fu ma mhm. dem ci àdduna. donc le 26 incha allah. nañ ma xaar. dinaa fa def concert ci stade régional bi. na ñëpp teew. te dina am ay surprise quoi. autorité yi wanaa ñëpp mhm. na ñëw soutenir ma parce que man seen doom laa te man mhm. ñoom laa am mhm. sa diggante ak sa fans yi man sama fans yi dañ maa bëgg ma bëgg leen dañoo bëggante te da di nekk ci jàmm quoi tout le temps yéen a ngi yéen a ngi tout temps ngi si jàmm sama réseau yi ak aussi ñi ma ci mën a gis à de réseau yi comment tu vis parce que réseau yi léegi lu neex waaye wax lu neex waaye def yow naka ngay dundee euh, réseau yi waaw man moom am naa mentalité bu dëgër ci loolu <laughs> comprendre damay lire nag man damaa dañ kumpa hmm. lu nit wax ci man dama koy gis damay liir commentaire damay bu ma beneen si dugalee sax wala ñeneen damay dugg xool li nit ñi di li nit ñi di wax ci man hmm. mais daf may mais am na yu may neex am na yu may yu ma dul neex hmm. mais yi ma yi ma neexul dama koy muñaale rek yi ma neex nga kontaan ci quoi lan la lay apporter euh, daf lay gën a dëgërloo daf lay gën a jox force mais bien sûr que oui parce que wax bu ñaaw moom bu la defarul da defar rek. parce que après da ngay moytu bu fekkee loolu ñuy wax ci yow euh, nekk amul. da ngay moytu bu baax. donc loolu la loolu lay jëriñ bu baax quoi à propos de réseau yooyu j'aimerais qu'on reste sur ça euh, puisque Merry Beye Diouf moo ñu lijjanti réseau yi li ci xew li xew euh, biir internet euh, Merry bu paree ngeen passe ma ko Merry naam maa ngi waxtaan nag sama doom ji waaye tey wax ji bëriwul. <laughs> waaw moom gis naa ne wax bi bëriwul moom nag noonu la mel de. maa ngi loqati ay question maa ngi maa ngi wëndeelu. yaa ngi allé à à l'information. difficulté yi muy indil bàyyam bi ci télé bi xam nga maa ngi dem jéem a lijjanti daal. <laughs> yaa ngi koy jéem a lijjanti voilà maa ngi koy lijjanti comme li xale yi di wax. moom nag dama seetlu ne si plateau yu ñu koy invité yëpp wax bi du bëri day wax l'essentiel rek. daal di noppi da dem ba da nga am traumatisme man bëggoon naa ko laaj sax ndax loolu du stratégie de communication. ah da ngay ragal wala lan la. wala ñu wala ñu xelal ko ko. waaw. non dégg nga. <laughs> da ngay ragal quoi. kenn xelalu ma de. Hmm. mais xam nga. nit nit rek la mën a doon te man xale laa mënumaa fexe du ba du ma nekk xale. Hmm. donc am na loo xamante ne dalay topp. Hmm. am na loo xam ne aussi dalay lay trauma traumatiser. traumatiser da dem ba des fois nga xool nit sax mu indi la image boo xamante ne après da nga doo nekk da ngay nekk ci leneen. dëgg la et moo tax tout le temps damay limiter samay wax. Mhm. li ma lu ma buggul wax dinaa fexe ba lu ma ko wax. parce que tout ce qui s'est passé daf lay indil traumatisme. en dafa mel ni que ne de li mu jot a dund yëpp elle a elle a pris en maturité. Mhm. ba léegi da siy jàng màndu boo xamante ne nii. Mhm. fu mu mënti dem. de elle a appris à question yi nga xamante ne bëgg koo tontu. waaw mais elle parle aussi de traumatisme. bien Après, sûr euh, est-ce nga waxtaan ak ay kilifa. est-ce que di waxtaan ak ay psychologue est-ce que tu es allé voir des gens yoo xamante ne mën nañ la ci dimbali euh, parce que mënoo am blocage noonu rek par rapport ak euh, tout ce qui s'est passé. non à part sama waa kër. Mhm. ak nit ñi ma jege. Mhm. ñoom ñoo may xelal. Mhm. ñoo ma yokk. nan lañ koy waxee. ñoo <laughs> lay yokk doole. voilà ñoom ñoo lay xelal ñoom ñoo lay conseiller mais xam nga rek. Mm, am na yoo xam ne mënul ñàkk. Mm-hmm. c'est dommage ko n'a pas cette culture d'aller voir des psychologues et tout ça et moi souvent je parle de euh, de santé mentale de tous ces obstacles que vivent euh, surtout ay jeunes ay xale. effectivement euh, loolu dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a mettre en place. parce que y a beaucoup de de jeunes. ah nit sax laay wax. parce que nit moom nit rek nga. Euh, yoo xamante ne dinañ soxla li nga xamante ne moom moo di assistance psychologique. Euh, ñuy mën a waxtaan mais on sent que à travers sa musique aussi. moom mi ngi jéem a defal thérapie boppam. waaw ndax ni muy waxee en plus de sa Pape nit ñi dañ ko bëgg euh, ci réseaux sociaux yi. waaw comment dis-moi comment comment elle est sur les réseaux. non elle est très suivie sur TikTok. gis nga ko nii li moom mooy li nga xamante ne moom moo di page Facebook am artiste parce que boo tapé Dieyna Baldé y a beaucoup de Dieyna Baldé moom dañ ko daal di euh, voilà defal artiste bi pour ñu xam ne moom la mhm. y a aussi des challenges si li nga xamante ne moom mooy woyam mi d'ailleurs euh, balaa ñu continuer dama lay may tuuti benn vidéo challenge boo xamante ne def nañ ko ci woyam ci benn ci woyam yi allez on <laughs> donc affaire de jàpp temps la quoi. waaw affaire de jàpp temps la xam nga def sa sañse togg sa lu neex xam nga. donc euh, moom woyam yi en tout cas dañ koy challenge lu bëri si TikTok. Mhm. Euh, ki nga xamante ne aussi moom moo di euh, YouTube. Mhm. am na li nga xamante ne mooy mille abonnés. Mhm. te video mi dafay am ay milliers de vues. te vidéo yi bëriwuñu et pourtant elle enregistre des des des millions de vues donc mu nekk loo xamante ne nii euh, dañ koy ñaanal rek encore plus de succès euh, ci li nga xamante ne moom la entamé mu di carrière am. super donc on mm. lui souhaite bonne chance. balaa ñuy dem ci dernière partie bi ak moom euh, pour tëj puisqu'elle est en de préparer son spectacle à Kolda. Mm -hmm. ce sera pour le euh, 26 décembre. Mm-hmm. ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi nga wax ñu li xew biir internet bi. ay allez. neex ci télévision Futur Média gërëm Merry Beye Diouf moo ñu doon présenté euh, li xew biir internet <clears throat> donc demain certainement dinañu ñëwaat ak moom euh, en attendant matchu euh, Sénégal bi ci kanam tuuti ñu bàyyi leen ak Eva Mami Diop ak inspecteur Ndoye Bane dem ci question yu mujj yi ak Dieyna Baldé kii mu ngi laaj naan sa carrière solo bi naka nga koy gérer entre financement ak investissement est-ce que yomb na. franchement yombul. parce que boo xoolee man sama clip yi dama ciy investir lu bëri. lu bëree bëree bëri bëri. waaw et baax na. souvent pour nga wut ay financement wut ay fonds dafay dafay dafay métti mais quand même y a des gens à part ñu may liggéeyal. Mhm. Mm, ak sama famille waa ñoo ngi ci jàpp ah. waaye mhm. ñoo ngi ci jàpp ak li may am ci sama YouTube affaire yooyu. donc ci laay débrouiller wu. loo ci am rek débrouiller ci quoi. def. def loo xam ne bu génnee par force day. aujourd'hui lan ngay regretter. regretter. bëri na. comme yan par exemple. non bëri na. bëri na <laughs> jarama ci wax. <laughs> yoo xamante ni doo ci bëgg wax. waaw bëri na. mais y a des regrets waaye même. ouais bien sûr. dina am ay yoo xamante ni tu te dis bu démb doon tey doo def musique doonte c'est ta ak euh, yenn moment yoo xamante ne peut-être mënoon naa intervenir wala mënoon naa def mais defuma. Mhm. à cause de lan xaw ma. Mhm. voilà loolu. nga toog seetaan quoi léegi balaa ñuy jeexal euh, euh, fi nga jëm qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens que tu as envie de dire aux Sénégalais qu'est-ce que tu as envie de dire à ta famille qu'est-ce que tu as envie de dire say mbokk say fans ñi nga xamante ni ñoo la bëgg di la bëggee lan nga am envie wax Sénégalais yi de façon général voilà ñoom ñëpp li ma leen li ma leen di wax lu tuuti la te bariwul mooy man xale laa ñoom ñëpp ñoom ñëpp nañ ma xoolee ni seen yaay ni seen rakk ni seen doom ni seen xarit parce que fii ku ci nekk si ñun am na loo xamante ne bëggoo ñu def ko sa yaay am na loo xam ne bëggoo ñu def ko lu mu lu nit ki mënti représenter pour yow. Mm-hmm. donc man xale laa artiste laa te ci yoon laa nekk. Mm-hmm. nañ ma soutenir ñu jàppale ma. te xool seen wax yi ñuy wax parce que bu ñu jàpp ne li ñuy wax euh, du ma affecté. Mm-hmm. daf may affecté parce que man may xool. man nit laa koo xamante ne lu nit mënti wax ci man damay dugg xool ki li muy wax. donc bu ñu xam lool lan lay def ci man. te nit da nga war a ragal sa boroom xam ne ñun ñëpp dañuy dee. comprendre nga. Mm-hmm. te li peut-être li nga may waxal yow yow loolu ngay dund sax wala noonu nga mel mm-hmm. danga may sosal xamoo ma. Mm-hmm. donc bul wax boo mu boo ma bëggul mënoo maa soutenir mënoo jàpp ci sama carrière te man damay sonn ci sama musique sans l'aide de presque mooy loolu. dama ciy sonn bu baax pour am li ma bëgg. bugguma euh, def bon bugguma def luñ may xeebee. pour ma am loolu bëgg naa ko am dignement. bëgg naa ñu ñaanal ma. xam nga soutenir ma ci nuñ ko mënee. te bàyyi lu ñaaw li ñuy wax mhm. loolu laay wax. voilà mu ngoog donc loolu mooy message wu u euh, naa rendez-vous donc le 26. Mhm. Euh, décembre à Kolda le 26 décembre. Euh, boobu itam événement la bu mag boo xamante ni daanaka mooy sa premier concert booy may sa fans nga décidé dem defee ji ko Kolda fi nga xamante ni foofu nga fekk baax lan ngay wax fans yi pour ñu ñëw pour préparer événement bi le 26. waa Kolda moom pare nañ daanaka ñoom commencé nañ def seeni affaire xam nga mm-hmm. dañoo mën a sot mm-hmm. donc di wax euh, autorités yi fa dëkk ñu jàpp xam ne Dakar mm-hmm. kin fa kii place du souvenir am naa fa date le euh, le 15 waa le 10 am naa Kafountine Euh, ak yeneen date quoi dinaa ko communiquer sama réseau yi après dinañ gis incha allah mais bii bu Kolda bi daal moom ma gën a ñor. mooy bu mag bi quoi mooy date dëpp bi. <laughs> on sera tous de la partie incha allah donc euh, euh, rendez-vous le 26 euh, décembre merci Dieyna ñu ngi lay gërëm bu baax et bientôt tu viendras ñu def ay live ak yu neex yoo xamante ni mën na bëggal téléspectateurs yi. balaa ñuy tàggatoo ak yéen on va vous donner quelques dates quelques événements yoo xamante ni mën na leen a mën na leen a soxal deuxième édition Work ak ki nga xamante ni moo di euh, Mouhamed mbay animateur euh, Mouhamed Mbaye càmmiñel Linguère yi mu ngi préparé événement boo xamante ni euh, deuxième édition after work la ñu won leen affiche bi dans quelques instants ñu koy amal vendredi 9 décembre à partir de 20 heures ak ki nga xamante ni mooy DJ Mouhamed Mbaye càmmiñel Linguère yi entrée 5000 lay doon animation. Ngoyaan euh, musique rétro affaire de temps boy euh, donc euh, after work la on va vous montrer l'affiche dans quelques instants voilà voilà donc deuxième édition